waaw dama yow la askan naa la. maa ngi lay fay. Euh, ni nga joué ci maanaam ci li nga xam ne moo di valeur Sénégal àdduna wër nga këpp apprécié comme toujours ah noo ko dundee. bon je pense que lu ñu yàgg dund la te depuis ñu nekk ci milieu bi looy dundu la mooy que personage doo xaar ba ñu ne la moment bii ngay joué personnage nga doo ko liggéey looy liggéey en amont la bien avant donc wala te situation yoo xam ne yow yàgg gis la. mais peut-être bi biñ koy gis ci ci moment boobu noonu soxlaa guñ ko woon mais dencoon nañ ko amaana yàlla dogaloon ñu waroon ko génnee ci valeur ñu indi ko fi waaw. Ah, nga joué ci rôle bu ma marqué. parce que tamit quoi qu'on puisse dire fii Sénégal boo ñàkkee rek lu bon lu ne dañ la koy jéem dugg nga ci car rapide ñu daal di agressé nit yow yëgoo tingoo comme yaa ci gën a ñàkk yaa ci gën a torox lu ñu ne yow la nu dundee loolu. waaw loolu dañuy indi l'habit ne fait pas le parce que peut-être ci solin bi la moo tax ñu indi lu mel noonu mm-hmm. te wax dëgg yàlla je trouve que réalité la en fait ñun euh, Sénégal bon maa ngi jégalu ci terme bi mais dañu war a changer suñu mentalité changer mentalité mooy ñu bàyyi xeebante un tout petit peu euh, xeebante bi mooy par exemple man jël caam laa tudd xam nga doomu diw ak diw ni may solo doya dina mais amaana famille bi ma bokk famille boo xamante ne c'est une très grande famille mais bu ñu gisee ci ni ngay soloo ci noonu lañ lay jugé ñu gis benn demba boo xamante ne moo dàq solu waaw matin soir mi ngi solu xamuñu fu mu jëlee li mu am après kooku la ñuy gën a naw c'est-à-dire balance bi dañ ko wax di def mu équitable mais pas ñu ñuy jugé nit ci solin wala ci waxin wala ci doxin ce que ci message boobu la ñuy jublu lancé ko pou wane doomu aadama moom doomu aadama la mun doon te buñ ko xoolee ci gën a mindeef alayhi salaam moom lañ gëm wóolu ko doyloo ko te yaakaar ko te mu ngi doon dund lu gën a metti loolu noonu teewul danaan jéggale di jéllale eh, dañuy référé wu ci loolu rek quoi. yasa yi am solo muy l' argent parce que lu tax ma wax la loolu famille Baye Demba. Mhm. amuñu maanaam bokk nañ ci famille bi gën a ñàkk mais yéen gën a heure ci seen waaw euh, gis nga mooy leçon bi ñëwaat xam nga tey jii doomu aadama yàlla may na ko alal bu dul jeex. te amaana tey ji ndeysaan bu waree tour ndox dañ koy euh, monter appareil mu dem tuur ndox nit nekk di dund papam ak yaayam bonheur boobu mu am papam ak yaayam comprendre ko ci te yàlla dogal seen xaalisu xaalis bi demeewu fa noonu mm-hmm, mm-hmm. pourtant kookoo koo a bëgg keneen ki nga xam ne mi ngi am alal te mi ngi feebar mm-hmm. foofu rek moo ñëwaat <laughs> yesaay ngeen nekk waaw parce que parce que unisson unisson dafa am solo unisson c'est-à-dire bu ñu nee famille mooy lépp loo xamante ne ànd la booloo mooy maanaam euh, partage ak euh, li ñu naan solidarité entraide compréhension mutuelle tolérance ak gratitude loolu la rek. mais li nga sañse tey déguisement bi décortiquel ma ko. Euh, si bu ma dee nga naan man déguisement doo bàyyi li ngay def yow kon kon bàyyi ma dem ñu parce que déguisement non non dara non comme on est artiste bon je pense que des fois da ngay da ngay def yëfu yëfu artiste rek loolu laay wax waaw moo tax ñu génn fay. mais li nga teg nii ci kaw lan la. bon lii je pense euh, tradition tradition tunisienne la. waaw c'est une tradition tunisienne. moo tax ma ma soog ko ne waaw ñu balancer un tout petit peu. merci beaucoup lan a xaar ci Dial Thiam parce que jamono ji quoi qu'on puisse dire rôle la mën ci jox yow ak Chérif Mal da ngeen di assurer ba sénégalais impressionné wu vraiment ci yéen. waaw non en fait liggéey bu ñu def bien avant la rek mooy que tey jii exemple bi may joxe tout le temps mooy Messi wala Cristiano Ronaldo. xaaruñu ba jour match jot ñu sélectionné leen leen kaay football c'est-à-dire euh, comme nit ñi muy yeewoo dem bureau toog di bind acteur noonu la war di yeewoo matin bu demee géej renforcé parce que acteur soxla na fond parce que déjà day am jeu xamante ne mën na doon par exemple euh, yow kese la day bëri nga war ko jouer mu war a en crescendo te crescendo kuy jouer xam na ne dafa dafa laaj énergie nga jouer ba tool benn dimension war a wàccaat fluctuation texte intériorisation concentration dafa métti donc acteur dafa war di yeewu matin dem job bu paree job boobu ñëwaat xool nan lay defee lecture pour améliorer sa sa culture parce que acteur boo amul culture je pense que mënoo développer lu bëri mënuñu ñëw jox la benn rôle ne la jouer ma rôle papa rek nga ñëw man papa laa après nga yem foofu noonu quoi yesaay. mais mosul la dal nga dox ci mbedd metti ci art bi ba nga ci nekkee ba tey. non du tout à période bi ma nekkee dikkoon. waaw bon nit du lu ma metti peut-être ñàkk comprendre la ñëw na ne ma yow rek laa bañ. te je pense que bañul bañul jal ci am mais personnage Birane la bañoon quoi non non pas jal la bañ mais Birane la bañ. waaye saa yi rôle Birane moom c'est normal nit ñi bañ ko parce tamit quoi qu'on puisse dire Birane doy na waar. non waaju sikk la woon kay. waaju sikkoon ku doy waar waay. ko kay non ko ku ante la. merci beaucoup vraiment merci pareillement à toi merci. ça fait plaisir.